رينا الجنان بقبري ويعطي الحمد بل كل حي يرى حياتي كلها وإثارة تفسر ماذا لك القبر بصرا وكنت هروب دهر وعينها فملك العلي منها منها كذا ملك إذا كسر والفرس مرجون عليه الهيبة الهيبة سنا عنه قريب وصار يصف دون مزاحم ولا قادم إلا تسنى له تنافت دلا دونك للسر بالسر وحده فما سقط الحصر والسر لا فأين طوى المزاج وأين كلمه وأين الذي ناجى ناجى ومسجده لا عليه صلاة الله ثم سلامه هو الحيس والحوت عليه الصلاة الله ثم سلامه فتزرق من أنواع الغرين صوت عليه مع الآل كرام وصحبه وذاته وليل مثناه محمد المصطفى أولاه أولاه كل أدناه وأعلاه الله أرسله للناس أجمعين قد الرسالة ما أغنى وأعلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل أدناه وأدناه وأعلاه قامت سريرته فاقت سجيته قد تم صورته وتم معناه محمد المصطفى

الدين قادم والحق ناجاه محمد المصطفى أولاه مولاه أولاه أولاه وأعلاه كانت عجائبه بل غرائبه فتتبع سنه بأسمائه محمد المصطفى أولاه مولاه محمد أدناه وأعلاه صلى الإله عليه فهو سوته مسلما وأجل قال ذكراه محمد المصطفى أولاه مولاه محمد أدناه وأعلاه وصلي على محمد المصطفى ما تاب مهداه وأول المصطفى أولاه مولاه وصل يا ربنا وسلم على عبد يا يمناه ويسراه محمد المصطفى أولاه مولاه وصل يا ربنا وسلم على محمد من برا قلبي وأصحابه محمد المصطفى مولاه ولنا وعدناه وعلاه وصل يا ربنا وسلم على محمد من صلى جسمي وابصاره محمد قضاءنا مولاه ولنا وعدناه وعلاه وصل يا ربنا وسلم على محمد وقد مني تحياه محمد المصطفى المستعان بعده خلفاء لا نزيد هلال المتوار سواء غير مولده أبيت عند السواء محمد المصطفى عبد العزيز وعبد الله يا عبد الرحيم المتن السوفاء لا نزيد هلال المتوار سواء غير مولده أبيت عند السواء في أرج صبا وعزة وعودة ورحمة ربي جارة مرتفعة والسماء أرج صراطا يستقيم به هذا القرآن فيوفى كله نفا لقد ظلوا إلى ذا القصوى والسماء والطيب مولد به عبيد والسماء وبه يستنير العظم والمصايا تنين أبو هديه هدي من سلفا لقد هذا المولى وفي بمولده أبيت عند سوا بدوره يستنير العظم والمصايا تنين أبو هديه هدي من سلفا لقد وجدت إدار المصطفى وفي بمولده أبيت عند سوا Oh زيد بداني لأجل أمر داني حسبي به وبطاها أصلي دنيا وذاته كبحالي حسبي به وبطاها حسبي Shall ana fa jotaay bi liggéeykatu faydu bi di nit ku baax nit ku yaatu di borom xam-xam di sëñ Ibrahima Isan wa maana ñu koy nuyu di nuyu Cheikh Hussein di nuyu Cheikh Zeyn al Abidin di nuyu Cheikh Mamad Xaaji di nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha di nuyu Cheikh Ibrahim di nuyu borom jotaay bi nga xam ne tey moo waral jëmm yu tedd yi teew fii nga xam ne moom moo ma leen gën a xam su jëlee kàddu dina leen tudd ñoom lépp ci làmmiñam te loolu mooy gën a jotal ñu nuyu Cheikh Abdoulahi Ndiaye ñu nuyu Cheikh Abdoulahi ibnu Cheikh Mamadou Kabir ñu nuyu sang yu jigéen ñi ak sang yu góor yi mu xaddal yi nekk yépp ñu nuyu Cheikh Baye Jamaat ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp su ko defee programme bi ñu bëgg mu demee danañ jox Cheikh Mouhamadou Bachir ibn Cheikh Mouhamadou Nadir mu ubbil ñu jotaay bi ci alquran su paree jox Cheikh Ahmed yi nga xam ne tey moo waral ñëpp ñëw bu nekk bés boo xam ne bés bu tedd la ci moom bés boo xam ne démb rek nettali na ma ci li tax mu sos ko waaye mu am ci digal ci sëriñam Cheikh Mamadou Hafid de Cheikh waaye nga xam ne borom digal la xesal ko ko jàppal ko ko ne ko dina sax ba pare warlu ci ay mbóot ngi ñaan mbóot yooyu yàlla ci yàlla dafa koy defar suñ mu tëtëgal gan bu paree ñu jox Cheikh Abdallah mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi mu sànni kàddu su paree ñu jox yi ak marraine yi buñ paree ñu jox Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Mountakha ibn Cheikh Ibrahim incha allah bu paree di tëjal rek ñu teg ko ci kon di mu jàngal bi ayatin min zikri hakim ngir ñu dee ba jotaay bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين معه What محمود البشير على هذه القراءة الرائعة جزاكم الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ñi ndokkeel bu baax Cheikh Mouhamadou Bachir ci alquran bu neex ji ñaan yàlla ko yàlla wattu wattu baat bi ñu ngi nuyu al alim Cheikh Konte nga xam ne bokk na ci pare yi di wax itam ne Cheikh Abdou Ndaw mu xaddamul baraka moom itam ci parents yi la bokk ak Cheikh Essa Ndiaye ak al mu xaddam Cheikh toog ànd ak délégation ak euh, Cheikh Issa Ndiaye borom jaasa ji moom itam ci parents yi bokk waaye itam ñu ngi ndokkeel marraine Aminata Cheikh Ahmed Dam Cheikh Ibrahim ak eh, Sayda Nafisatu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu Cheikh Ibrahim su ko defee ñu ngi nuyu Ahmed Dam al alim al allama teew na ba léegi ñu nuyu ko Dubaay borom xam-xam su ko defee ñu jox Cheikh Ahmedou ñi nga xam ne xaw ma seen tur te ñu nekk fi incha allah dana leen tudd moom mi nga xam ne moo fi dajale ñi ñëpp di sa si baay nit am yar ku am kóllëre ku ubbeeku moo tax mbooloo mi ñëpp tey kenn ku nekk di kóllëreem te jëmb rek may wax ne moom faydu bi rek moo ko ñor lépp loo xam ne xam ne ne su ko defee faydu bi ko def waaye du ko def ci ko loo xam ne borom xam-xam gis na ko xam ne lii bu ci jaaree mu baax na ci wax ak moom loolu dëgg-dëgg ak déeku la sëriñ bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla dëgëral taxawaay bi ak foofu nga teg sa yàlla la fa yàlla gën a dëgëral comme ni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 الشيخ أهدينا بهذا المعبر والتعطف بنظرة تأتينا بزهر بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi mboolem ñu fi teew waaye di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu mag Cheikh Abdullahi mu Cheikh Mouhamadul Muntaxa incha allah bu Ñas maa ngi koy nuyu di ko ziar ñu koy nuyu bu baax di jox wàccuwaayam di nuyu suma mag Cheikh Mahamad Haaj ñu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu Cheikh Ibrahim Ñas di ko jox wàccuwaayam di nuyu شاء الله الشيخ زين العابدين والشيخ محمد المحمود والشيخ Ibrahima Niass di ñu ndokkeel ñëpp di nuyu mboolem ñu fi teew ak ñu xaddam dajale yàlla rek la leen fi dajale bàyyi rek la leen fi dajale wóor rek la bés bi lu tax ñu koy def defuñ ko waxtu bu nekk ci góorgóorlu bu nekk bokk ci jaamu yàlla yi waaye bés bi daaw taxaw ci buntu teen bi ci côté kër yaa Khady Faty ma maa ngi ànd ak benn mbokku taale bi ñuy wax Moustapha Niang mbokku taxaw ci buntu teen bi ma ñëwee nuyu ko jox ko loxo mu jox ma loxo ne ma ndax Ahmed ndax man nga zikkar ma ne ko waaw mën naa zikkar tey mu ne ma zikkaral ma ko di gis ronkañam di tuur bi ma gës ko waatee nag gisaatu ma yeewu sama xol bi sedd lool bu toogee ba gannaaw tàkkusaan xam ne Cheikh Mouhamadul Aadam moom waxtu boobu lay wasifa ma dox dem këram ma demee fekk ko mu sol même chose li bàyyi soloon ci gént mbaxana ba mbaxana mu weex la bàyyi solo ma dem fekk ko mu sol mbaxana bu weex bi ma ñëwee mu xatlu kaamilam bi ba pare ma ne ko ah man de papa dama génn si benn gént man dama tëdd daal gis bàyyi jël loxoom yi ñu tàllal ko dama ñaanal ma bañ mu ma ñaanal ma ma bañ marhaban bi ko muy dalal si am dalal si incha allahu